lii ñu teg Sonko lii ñu teg Diomaye lii ñu teg tous les jeunes qui en prison mais c'est inconcevable ana ñoom Karim ba léegi ñu ngi kaso ana Omar ba léegi mu ngi kaso où est le rappeur la nit dof nit dof mais ñooñu nga téye leen dugal leen ci kaso ba léegi mais non dafa ëpp nag xanaa nag di dinañ la libérer ñun on a toujours dénoncé l'injustice mais ñun ñoo ko njëkkoon a subir ñun ñëpp dañoo am dañoo jaar kaso. ñenn ñu lan moo tax xeexu leen ma ne leen ñun xeex ci duñ dëkk. ba ma war leen léegi bu wala ni ko ñun dañ doon xeex waa Sunugal 24 xanaa nag suñu waxee suñu waxee yéen waxuñu yow yow peut-être si instance nga mais parti bi la ñuy wax di def ay communiqué di ñaawlu détention arbitraire yi di ñaawlu li ñu mais yow duñ ko gis nañu waxante dëgg PDS dafa yàgg def benn mutisme boo xam ne mooy yem ñu ne nguur gi la gën a jege nguur gi la gën a jege même assemblée nationale sax gis nañ taxawaay bi nationale gis nañ ngeen nekk euh, waa Pastef ak waa Yewwi fële ci assemblée nationale ñaaw na ba pare pare ngeen oui assemblée luñ fa nekkee kenn nekkeewu ko fa ñun on a un groupe parlementaire ñun ñun PDS depuis 74 lañu commencé politique on n'a que des personnes expérimentées dont am Thiam notre président de groupe parlementaire tey sooy dugal ay loi da ngay jaar ci ñun ñu diisoo ko dugal ko ay loi ñun nee naa leen ñun dañu leetar bu ndey bu ñu yóbbaale noonu da ngay diisoo ak ñun moo tax ils ont fait beaucoup d'erreurs au niveau de l'Assemblée nationale parce que bañ nañu diisoo ak ñun nous on a des personnes qui s'appellent Doudou Wade qui sont à l'Assemblée soo ko laajee mooy ba ñu doon dut seen motion de censure bi gis nga ko defoon de concert avec le PDS du am benn beneen bi ban ban ban ban xeex lañ fa def mi xeexu Mimi Touré la Mimi Touré mooy ki nga xam ne moo ñu tëjlu Mimi Touré mooy ki nga xam ne moo fi toog ne yow yow Sonko du ma waxtaan ak yow tànk que dama wuy ji Adji Sarr kooku mooy Mimi Touré Mimi Touré moo daas paaka ji rendi suñu suñu suñu suñu candidat Karim Wade kër yi kooku mooy Mimi Touré moo ñuy saaga di ñu ne ay dealer lañ. kooku mooy ñëw tey naan dañuy toog ak moom di discuter ak xam ngeen ne Mimi deful ministre de la justice fii li mu fi def dafa neex président ba ah bon yéen da naa yëpp Mimi Touré donc mais mais moom moo ko doon la preuve il était premier ministre la preuve la premier ministre ah, premier ministre bu ko nekkee bu defee lu neexul kilifa gi sa ngoon sa mu tàqali ko moom. kon kay lépp lu mu fa def Macky Sall moo ko. lan moo waral ngeen mere mi ki ba pare mere woo leen Macky. ñun Macky la gën a mere. xanaa mere leen ko xanaa yow li ma lay wax déggoo ko. mere woo leen wala da ngaa bëgg ma jël paaka jàmbaki. déedéet doo kay da ma wax la ñun dañoo yaru de. ñun on fait. taxawaay bi ngeen am nii taxawaay yaru taxawaay bu mujj bi moom du taxawaay yaru moom taxawaay bu mujj bi moom. taxawaayu xeex moom lañ mës a taxawee déedéet tap man PDS xàmmeetuma leen. bu jaree non man xàmmeetuma PDS bu jaree xeex ah, non PDS xàmmeetuma ñun nag kenn duñu hmm? marche pas avec des erreurs. c'est pas parce que journalistes yi dañuy wax ñu def lu leen neex ñun dañu am parti politique ñu am ay instances di réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire la politique est une séance da ngay réfléchir nga progresser ñun kenn du ñu wax loolu ñu bëgg te wax wala nga def loolu ñu bëgg te def wax naa ko une fois de plus assemblée dañ fa toog lu ne ñu jiñ ko mais les gens ont compris par la suite que nous sommes un parti fort un parti responsable un parti qui est issu de maître Abdoulaye Wade ba léegi moo ñuy conseil on n'a pas droit à l'erreur Mimi Touré du suñu nawle du ñu wax ak moom ab tas tas du ñu wax ak moom parce que du tus tas du tus du wax ak moom ñun ñu ñuy waxal on parle de la république <laughs> du tus wàcce nañu par des par le complot ma ne par le complot. non complot amu par tas et les éléments qu'ils ont posés xam nga lu ñuy wax. Mm. on demande purement et simplement la dissolution de la cour constitutionnelle nañ ko tas. conseil constitutionnel. parce que complot ba ca nekk moo tax ko tas benn deuxièmement premier ministre nañ ko destituer. Eh waaw. ça c'est le PDS qui parle nañ ko destituer parce que du nit baaxul santul yàlla. ak lan copulence la fa nekkee. Mm. ak lan mm. les le PDS naka s'organiser à la résistance. bas waaw. appel à l'insurrection bëri na ñu fi dama ne dañ est-ce que doo leen moytu. oh insurrection la résistance c'est quoi la résistance c'est quoi devant l'oppression qui ne résiste pas c'est un droit. jeex na. Mm-hmm. c'est un droit c'est ce qu'on dit nous simplement maintenant les formes de résistance sont diversifiées quelle résistance je dis. Moustapha ñun nous sommes dans un pays de démocratie de liberté d'opinion on a été muselé on a été malmené mais bii moom ah non non non on ne pas passer

non non wax dama ne Daddy. il représente la jeunesse au Sénégal kan mooy xeex. non ñu ngi fii ñëppay xeex. ñun man bu weesee yow bu weesoo moom mi. waaw maam Diarra Fam. waaw Tafsir Coy ak kan. ñoom boo limee da ngay da Nafisatou Paa yi Nafisatou. kan mooy kan mooy xeex ay ndaanaan kese fa. kan mooy xeex PDS bas bu leen xeex. nga ne bas bu leen xeex. boo déclenché na pare. yow sama waay bu leen xeex la machine bu ngeen foote bu ngeen footee mars sax góobu mu. loolu problème bi dama ne te gars yi ñoo amatul jot gars yi ñoo am leen ci seen bopp yi dem. battre campagne naka la ñuy organiser woo pour mën a. pour mën a c'est-à-dire c'est ça le problème quoi. yow nag keroog nag fekk def nañ fi débat. oui nga défendre fii waa Pastef défendre leen fii yow danga war a tëddee jaaxaanaay. mais dama tëddee jaaxaanaay non non non bi ñu commencé tey débat bi sax da nga bokkut sax. tey débat bi nga ma ko bàyyi xaw ma équipe nationale moom tey moom ko ndax dafa ba nga a bëri ñëpp dama am sa ñëwee nii. loolu laa doon bañ. est nii nga ni ma da far. parce am na lu xew. loolu laa doon bañ moo tax ma bàyyi laa ak Moussa. tey moom da far. da ngaa far te da war a faral nag parce que dañ ñoo tooñ teguñu ko fen parce que dañuy gagné réew mi moo tax ah, mais mais mais ñii ñoo mën a yàq waaye ñii ñoo bon. non espoir amoon na nag. on se voyait au palais espoir amoon na. wallaahi kenn mënuñu loolu ne ñoom ñooñu les sondages donnent raison à Karim Wade. ah bon sondage yëpp tey dama toog kilifa seet si ma tudd naa turam bi sànq. Mhm. dem bu deux heures du matin mu seet ne ñuy waxtaan. mu tegal ma ay sondage ma ne ko jox ma les les les les les commanditaires des sondages la mu ne ma déedéet xaaral Euh, ak sondage yu ñu def waar yu pouvoir bi yor Karim jiitu leen parce que Sonko dañ ko randal rek léegi je ñëpp viréw ci Karim di ko xaar Karim def discours à la nation mu poñe réew mi gars yi ñu ne du fi amee moo tax ñu def tappale bi. Hmm. ba pare nag xam nga Karim papam ni mu fi defaloon ak France ba léegi dese na metti na leen ba tey papaam dafa woote nationalisme dafa woote dañ ko teg si yoon. réew mii koom-koom bi na des ci réew mi mm. àndu nawle merci mu woote ko mu réussir yenn yi Karim Wade tey il est au Qatar bu jëlee réew mi va diversifier la coopération Moustapha loolu mooy dëgg il va diversifier la coopération parce que il s'y connaît déjà lorsqu'on lui a donné l'ANOCI Karim a eu à apprendre beaucoup de choses parce que bi ñu fi waxee France France France papam dafa ñëw mu denk Karim Wade mun a diversifier la coopération demal Inde demal Chine demal un peu partout à travers le monde pour diversifier la coopération ñu jox ko les les les mines Karim à travaillé dans les mines pendant longtemps dans l'or dans le pétrole pendant longtemps Karim connaît les banques parce que UBS la nekkoon lu ne mu daj ko ca lu ne mu jàng ko ca Karim est un expert en finance montage dossier la ca ay AIBD bi Karim bokk na ci ñu ko suqat mais ci cette personne là la ñu xam ne ki kii bu ñëwee l'Afrique va connaître benn jour fee mu nekk Qatar xam nga lu ko gars yi di wax ñenn ñi surtout dañ naan Karim est peinard au Qatar il a de l'argent il travaille au Qatar soxlawul Afrique ils n'ont rien compris nous chaque jour que Dieu fait Karim nous parle bi ci mujj hier la vous vous allez me dire encore WhatsApp kërti kërti y a pas que WhatsApp WhatsApp tweet et cetera chaque jour loolu mooy xarala yu bees yi mais lan ngeen bëgg nous on santa avec lui lu Karim wax mais Karim xam nga Karim Wade a ngi nii no dama leen di wax. Karim Wade ngi ni lii yëpp. Mhm. ça c' est du Karim yéen waaw ça c' est du Karim. Ah, c' que kii du Karim kuy liggéey lu ñu wax ñu def ko lu muy conseillé ñu koy def mais kii il est Sénégal il le fait avec tout le monde mais lan ngeen bëgg. ku ñu exilé nit ñi ngeen toog di xoole mu ñëw Mahfouz lan ngeen wax bi ñu ko exilé lan ngeen wax ci exil bi sept ans d' église d' exil est ce que loolu yoon la mësut a am dans l'histoire politique ku ñu exilé noonu ma nekk bitim réew lu ne mu jëm ko participer. korité bu amee mu wax ak askan wi bu xale yi di dee ci géej bi mu ne leen ma sew leen nii laay def man bu ma jëlee réew mi il parle de l'autonomisation des femmes mais tey ñu koy teg lii ngeen ne da koy seetaan non ne leen doowaay il faut refuser léegi nag man sama solu mayo bi ak couleur yi ñu indi tey jii sa hmm. fay wane ni kii mbir mi du mbiru Karim mbiru askan wépp la hmm. injustice na ko ñëpp bañ mu hmm. ne li ma jaaxal mooy que ni weer weer a des ci ci élection bi te moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk Moustapha Moustapha mhm. xam lu ñu tala ah? mhm. naka la def ba booloo dem ci campagne bi. Ah, loolu mooy yoon yow loolu nga. soxla dama a a def mais waxuma loolu la ñu war a def nag. waaw léegi def <laughs> léegi nag waxal loo xalaat tëjul <laughs> ah? réew mi demee nii. ah mais pexe amul. bu jëlee réew mi daan waxee pexe amul. wuy ma fichier électoral bi Amadou Ba moo ko yor Macky Sall safar yor ko non bi dinañ ah, la code bi joxee te man mandataire la mandataire départementalu PDS bi man la suñu ñoñ yi ñu ñuy siégé la yooyu nekkuñu ca lan ngay def fooy fooy dat da ngay kaas te li ma wax ni coow lii dina ñëwaat yéen da ngeen bëgg ñu dàq élection yi mais élection yi nañ ko war a recommencer ñu xool ko ñu saytu ko Karim bokk ñoom ñoom Mimi Touré ñëpp bokk ñu dóor leen si mooy yoon a 50 candidats nga ñu bëggal <laughs> mais yow ñi nga am 20 doyuñu mais on va reprendre ñu dàq élection reprendre y a des mécanismes d'élimination <laughs> dañuy reprendre yow bañ fi éliminer Macky Sall bàyyam jeex dama ne bàyyam jeex dañ ko defar bàyyi juróomi at la amoon jeex na éliminer nañ fi mosu leen fi ñi fi éliminer 40 personnes euh, candidats ñu fi éliminer mosu leen wax ne nañ ko recommencer xanaa gisu leen suñu communiqué yi ñu éliminer leen ñu éliminer leen ngeen ñu recommencer ñun bu ñuy tëj yóbbu ñu exilé ñenn ñi dañoo wax Bassirou mais dama lay laaj Mahfouz aussi soyons un peu logique. Bassirou lorsqu'on a été exilé. lorsque Karim Wade a été malmené est-ce que ñenn ñi dañoo wax. Bassirou mëntuñ dellu ginnaaw. yéen bi ñuy dissoudre Pastef communiqué ngeen communiqué ngeen ñaawloo et manifestation mais man je mais d'autres sax pensaient que man Pastef laa bokk mais c'est du patriotisme man bu ma demee Ziguinchor bu ma demee Ziguinchor sama mbokk Ziguinchor yëpp. dañuy xam ne su ma si je fais un débat lépp lu fa anormal ñuy so ñuy attaqué Sonko au niveau de la mairie yu dama leen tegu leen ko ci yoon biir Ziguinchor chaque jour j'ai tenu un langage de vérité parce que ñun c'est du patriotisme ñun c'est fini kenn dootuñu mën a changer nous sommes du PDS à vie nous sommes des PDS de lait et on va mourir au PDS insha allah dara mënuñoo pousse mais nag bu ñu gisee injustice dañ koy wax tey Diomaye warut a nekk kaso Sonko warut nekk kaso du seen place Karim Wade ne devrait pas être exilé il devait être là nit dof dañoo war a génn xanaa déggu leen ko. d'accord léegi nag élection yi fu ko teg teguñu ko ci yoon nañ ko saytuwaat. dé dégg dégg nañ la mais léegi nag li fi des li fi des mooy ngeen jéem a comme da ngeen fi bëgg a jëlee Macky Sall ak Amadou li ñu des mooy ngeen war a mën a topp euh, maanaam dem ci ku ngeen ku ngeen àndal ngeen ngeen ngeen ngeen dooleel ko mu jële fi ngeen jële fi ñii fi nekk mais élection moom du am moom loolu moom du du wax loolu nga foog ñun fa la ñu toll nii élection yi dañ koy pousse yéen yéen yéen waxoon ngeen ko fi Karim kenn du ko jàpp jàpp ah. nañ Karim kenn du tëj Karim tëj nañ Karim. 2019 am na fi 2019 yooyu am nee élection amul tamit xam nga tamit fa mu jaaroon lay jaaraat rek fa lay bi la ah, même jamono ji sax moo gën a garaaw boobu ngeen fi ëppoon doole boobu y avait beaucoup de mouvement amoon na fi ay askaaw Malick mouvement bu ne amoon na fi tey lañu ëpp la yàlla xam doy na xaaral ma doole tey le PDS est renouvelé un peu partout jusqu'en profondeur de nouvelles têtes des jeunes comme moi rek ñoo ci nekk ay bañkat kese lucide et critique des intellectuels yu mën a bañ. ñoo ci nekk kenn gisu leen mais c'est des kenn gisu leen PDS bu weesoo juróomi tête yoo xam ne ñoom ngay xamee du gis kenn yow ñu ngay woo fii sa plateau bi rek nga xam kon jëlal cartographie Sénégal nga xool fi ñu renouveler yépp di nga xam ne ay kàngam kese fa nekk tey PDS bu yëngalee état bi dina xam ne PDS yëngal na tey la ñu ëpp doole tey la ñu gën a taxaw tey non mag ya dañ ko def renouvellement une fois de plus man damay mag non yow bu weesoo yow kay. nga may ah, yow la ñuy gis. yow ci plateau yi xam barki dem gis nga. Gallo ah, conseil constitutionnel. gis nga ñeneen ñi yaa Gallo kan. Gallo sax gëj nañ ko gis Gallo sax gëj nañ ko gis. yow ah. ko gis y' a pas que lui man je ne fais que nommer les tafsir sont là les. les les tafsir jëm na mag mais celui celui qui a les structures il s' appelle comment Saliou Dia c' est un jeune très dynamique. ak ak député bi ah. ana Famara Senghor. qui ont les structures du PDS les structures internes du PDS yëpp yëpp la ñu renouveler bu ñu pare le PDS tey la gën a taxaw gis nga PDS dafa mel ni xalu ndeef ba hmm. boo ci jógee day gëmm rek waaye du ma sa fay soo ci tegee sa tànk sonn gis nga bara garabu banaana lu muy meññee ba ñu witti ko beneen meññ ci suuf meññeef bi ñëw moo ëpp solo moo gën a taxaw loolu moo fi xew ñun mu sommes des au PDS à vie xam nga le missionnaire mooy kan hmm. dafa mel ni boo jëlee lugat lugat dugal ko ci biir teen baag bi la jëli ndox mi taxu koo jóg da ci kii rek ñun nous sommes des missionnaires au te dañ koo nangu ñun dañoo gëm PDS dañoo gëm waa PDS ba pare soxoruñu Macky Sall bu mu jëlee réew mi ba muy kii pa paa bi dafa ñëw egsi mu ne ma mu ne ñu jiital leen ko ñaanal ko dafa génn pale mu jiñ ko ay sàcc Mimi Touré moo ko jiñ ay sàcc moket da fàtte loolu ay moket ay ay. tableau ay tableau kooku ngeen ne ñun tey bu ñëwee dana ñuy bëgg ñu jóge foofu ñu commencé track ñu traqué suñu waa yi sonal ko jugal ko kaso te biñ koy traqué fan la nekkoon il était à l'extérieur ñëwal wuy si mu bàyyi la mu doon def yépp mu ñëw ku sàcc du def loolu ku ragal du def loolu Karim Wade du ragal jóge bitim réew ñëw toog. d'accord ñëbbu ko ñu jugé ko. ñu toroxal ko ci biir kaso bi gën a ko. d'accord Bassirou tey nag on refuse. j'appelle à la résistance. d'accord euh, Moustapha léegi bala ñuy ñëw ci ñaxtu bi. parce que Bassirou tàngal na fi ah ba Bassirou vraiment euh, tey moom xàmmeewu ma ko quoi. Bassirou léegi da ngay def sa appel ah. bi nga bëgg a def ah. appel bi nga bëgg a def